الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki Ataskiru Sabah ñi ngi dellu si waat ci numéro 1532 ci ndimbalul borom bi subhanahu wa taala di leen siyaare di leen ak di dongante ci eh, jokkoo yi waran di am te léeg-léeg xañ na du am mu nekkoon ci wàllu eh, sëy ak tontu laaj yi nga xam mi ci sëy ak contexte biñ ñu lay wax bés bu ne lii tas ñu lay wax actuellement ñaata jigéen ñooy jaay seen bopp ñu lay wax yu bare bare bare bari nu bëggante taxaw ab diir ci wàllu gu mel noonu doonte li nu nekkoon bàyyiwun ko muy waajtaayu xëccoo yii nga xam ni mooy élection yii ñëw muy wote maire yi mbokk yi ci yàlla démb ñëwoon nañ ba ci ñeent yi nga xam ni alayhi salaam nee na <clears throat> ku ko yàlla defal defal na la yiwu àdduna ak alaxira la ci jiitoon muy xol boo xam ni xalban shakiran xol buy sant yàlla ndax yëg ni am na buroom boroom bu jara sant mu di ko sant waaye làmmiñ wuy tudd yàlla waaye làmmiñ woo xam ni moom daanaka bu tiitul lu tudd yàlla wala bu fawul du tudd yàlla mbokk yi aw làmmiñ dañ ciy tudd yàlla nga ni ah man feruma ijji mun ma jàng alquran leneen lañ ma jàngal waaye tudd yàlla moom ku ferul ijjit man na ko ndax astaghfirullah sallallahu ala muhammadin allah alhamdulillah akbar la hawla wala quwwata illa billah yooyu nit da ci sas boppam nit day sas boppam ci tudd yàlla boo gisee tariixa yi tariixa bu ne am na lu ñuy tudd aw wird woo xam ni boo koy jël dangay dem ñu di ñu sala ko leeral la koy jëfandikoo noo war a mel muy charte ya mu doon lu digg doomu looy def ci lu yées genn wàllu waxtu ah, tudd yàlla gi sunu boroom santaane am ci yu bu muy defal boppam muy salaatu ala nabi nga dëkka defandoog yàlla ak malaayka yi loolu ni mu réyee nga bàyyi ko ëpp naa def yàlla defal la eh, yaram woo xam ni doob jàmbatkat xam nga yàlla nit ki yaramam buy wér léeg-léeg dina wérat yi nga mën a muñ tawat yooyu ba doo ci saadit doo ci dem ci jibar doo ñaaw njot ci nit moo ma ko teg nee na jabar ju baax jabar nag ah, day bari ay qualité day bari ay qualité bu njëkk ay qualité lañ doon dawu ci jigéen waaye du rocc saw yaram ba mu weex tàll tàll monte say xef say wex ay en sax dégg naa dinañ ko monte allahu akbar mel noo xam ni kii moom du moom moo taxit day ko ci yàggul dara rek soof waaja lool ndax waaja la mu foogal kam gisan ci xew mooy kii borom foto bi nekk te moom mooy kii nekk nii la mel mu gis kaneen mbokk yi yàlla kon mu mel ni eh, alisalaam dalaa xemmam loo wàllu denc dalaa xemmam loo wàllu sëy yi dem jigéen am jëkkër waaw bu wax naa ey yéen ñi toll ci sëy waxambaane yi ku ko mën demal denc soxna waay ku ko mën neen na daal di denc man istaa minkumul baata fal yatasawaj la wax fa fa inu aqardu lil basar wa ahsanu lil farj xam naa jamono yi moo ci gën a sax dëppoo ak ak ak yewee jamono de ndax nee bu dencee soxna mooy dox sa digganteeg sa bët du teg ci euh, sa sa euh, jigéen sa xel la ci ne la ba nga di ko sàkku ji sa xel la ci ne la ba nga ba mu lay sonal waaye léegi nag moom bu njëkk sax boobu jigéen ñi dañ laa solu doo gis dënnub jigéen doo gis euh, wóomub jigéen ak wóom rek même yeel bi sax bu bu rëccee ba génn ngelaw la waaye moom ñoom ni ñuy solo macha allah macha allah rawatina léegi nag mu dem ca ku ko mënul na woor kon xam nga mbokk yi toog lu yàgg te sëyoo ah kon ndekete am na lu mën a wàññi ci yaram sax ndax wax nañu addisu bëkk démb njëriñ yi nga xam moo ne ci wàllu sëy waaye mbokk yi ah buñ ñëwee ci li xew dëgg-dëgg nag li tax léegi sëy yi tas yi bari jànq bu am ñeent fukki juróom fukk juróom fukk ak nangam ci natt yi suñu boroom ba léegi amul jëkkër te jigéen ñu bari moo leen gën mbokk yi am na fi de jigéen ñu bari ñu ngi fi baax loo waaye am amuñ jëkkër ba léegi ñenn ñi mus koo am waaye ñu toogaat amaatuñu ba romb dugg li ñuy wax ménopause ménopause mooy jigéen bu amee ñeent fukki ak juróom ñaare quarante cinq ans ñeent fukk ak juróom ñi ëpp ci ñoom dañuy dugg mën ménopause xëy daanaka du ñu am tu tànk doom léegi nag jaxasoo gi am na euh, boo xoolee fi ñu toll nii buñ la nee ñiy jaay seen bopp bu ñu mujjee def benn contrôle fii ci Dakar dong de am na euh, ñeenti junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñaar quatre mille six allahu akbar les sénégalais ay nigériens ay guinéens ñu ne waaye sénégalais yi ñoo ci ëpp man leen c'est normal kay ginnaaw fii sénégal la kay xañ na boo demee mën réew doomi réew mu ñooy ëpp ci ñey jaay seen bopp ñu ngi noonu ah boo demee ci ñi si jàkka yi ñoo ci ëpp di boo demee ci support yi sénégal yi ñoo ci ëpp di kon c'est normal ñu ëpp ci la métier may bon bon mbokk yi ñu ñu ñu la ci diggante janvier ak léegi rek ah, am na fi ñaar téeméer yu teg yoo xam ni am nañu ay carte carte mooy ah, yow kenn du la ramas guddi gi ndax lan njax da yor aw carte subhanallah cey moomu réew gis ngeen laïcité ni mu bone laïcité bii ñu ni indil wax gis nga ni mu bone laïcité mooy nit ki dama bëgg jaay sàngara nga dem sàngam mu dem wuti kayit sàngam mu ñëw ci koñ boo xam ni doom jullit rek rek rek ñoo fa ne mu installé fa benn boutique def fa xeeti sàngara orne ko di fa teg ay ay ay ay ay ay ay misigam wut fa ay toog ay naanukaay laïcité mooy doom jullit yi nga xam ni toll nañ ci dem sëy ñu leen laa fii dañ fii tere ku maye doom te amul dix-neuf amul dix-huit ans nangam nangam pite tapa waaye nag borom dix-huit ans yi bu ko neexee lu dem ñu wutal ko carte muy muy muy liggéey zina di lekk di jox ay waajuram allahu akbar laïcité bi ñu indil mooy laïcité boo xam mooy réew moo xam ni inamal xamru yàlla ne dama araamal sàngara waxuma ne sax boutique waaye ñu nga ñëw installé usine sax moom fayal ay droit wal may siru carte araamal naa ko ñu wut benn societé nationale boo xam ni euh, tudde ko loterie nationale saa borom da koo tere ñu installé maanaam mbooleem lu alxuraan xaraamal laïcité bi ñu indil bëgg na ko bëgg na ko ci majorité musulman mbokk yi kon ñoo ñu jaay seen bopp am ci ñaar téeméer ak nangam ñoo xam ni feebaru sida jot na leen waaw ñooñu léegi duñu leen génne bokk ginnaaw ñëpp war na bàyyi waaye ñooñu moom duñu leen génne ñu toog ginnaaw xam nañ ni ñaar téeméer rek nangam lañu mbokk yi kon sida day gën a yaatu day gën a am na ñoo xam ne jigéen dong du du du du jaay boppam fokk mu am góor gum ko jaay góor ga mën na caa mën na caa mën na caa jële sida mën na ko wàll ay njabootam bu fekkee ni am na ay soxna bu fekkee ne day ànd ak yeneen jigéen kon loola feebar la boo xam ni la ko gën a yaatal jaay seen bopp ci la bokk mbokk yi nañu jël ay responsabilité mbokk yi ndeysaan ci biir am na ju ku ñuy wax jël sax may tudd tur wa dégg ngeen tur bi moom euh, euh, biñu àggee ci moom jooy na jooy yu metti lañu wax ndax laa réccu xam na ndax am dix huit ans dix neuf ans di jaay sa bopp ba am juróom euh, euh, euh, juróom juróom ñaar fukki at nga xam ni juróom fukki at ak nangam de carrière ban carrière léeg-léeg ma dégg ñun diw day da doon da màggal quarante ans de carrière cinquante ans de carrière carrière de ma ah waaye carrière bi muy màggal moom ndax am na njariñ ci boo jógee ci bàmmeel ndax am na njariñ waaye kiit day yàlla ko yàlla wëlbati ndax mu tuub rek yàlla jégal ko weesugul aman na njaalokat bu doon njaaloo romb am xaj bu mar mu summiw daal lam fexe ba wutal ko ci ndox ci teen bi mu naan alayhi salaam nee yàlla da koo ba mu faatoo ndax yërmande jooju te ab njaalokat la woon mbokk yi tuddoo nañ démb ci sabab yi tax yi ñu war a génne ay aada yu bon yu bokkul ci sunu ni ni fasay sëy xam naa yére robb bu jot rek sëñ bi loolu yomb na waaye robb de mariage liñ ma ne moom lay jar am na ci yoo xam ne subhanallah subhanallah nit ki jël ko di jullit sol ko waaw xanaa daaw mun daa munta yem rek waaye foog mu gudd daal ba am na luy lang ci ginnaaw lu benn waay topp ci moom wala benn soxna yoral ko ko subhanallah ku ne mu luy la rek rek dënn bi ne ci biti maanaam daal loo xam ne kenn loolu wax dëgg yàlla cosaanawul fii xeeti robb yooyu cosaanawul fii maanaam li ñuy def lu naqar yàlla ci njaalbeen gi bu ñuy bu ñuy takk sëy bi li ñuy tooñ yàlla li ñuy moy yàlla ni muy baree dinañ yàq loo xam ni xam naa buñ ko defal lu baax bëgg koo jàng di la jafe trop trop trop te yëpp ay complexe ñu bari day mel ni sañuñu ko koo bañ góor gi day góor góorgóorlu ci diineem eh, di di di takk soxla bañ waa soxna sa mere ko ak garawul man bu ñëwee kër gi rek dinaa ko seere lu ne ñu nga nangu ko ñu teg la ko lu ne nga nangu ko ñu teg la ko rek jàkk ji yow daawoo eh, daawoo manqué waaye nag fan yi ngay takk moom ah jàkka ji bokkul na la xaar de na la xaar ba nga noppi mu ngi noonu ku jigéen ki ci laa góorgóorlu noonu jëpp nit ñi doo leen bàyyi ak sa bopp am na yoo xam ne da ngay lànk yaa ko yoral sa bopp ndax sa borom moo lay càmbar bu ëllëgee yomal xiyam gis nga waaw kon eh, bu fekkee ni kii du sol lu am valeur lu dul buy dem ngénte buy dem ceet buy dem nangam waaye yow sa borom kër ne ci kër gi nga ci kër gi lu lu gis nga sol lu baax lu rafet mukk mukk mukk lu da ngay génn muy nettali xale ba doon dox ni ah yooyu sama yaay day simb ndax musul gis yaay ji solo nii te xale la buy soog a xàmmee rek ndeysaan yaay ji solu solu seen col yu doy waar yooyu rek ah gis na kanam gi def na ci lex bi lu rose fii lu bula ci ci ci suuf bi nangam ci kaw bakkan bi nangam nangam nangam niroog ak gaynde simb lool ngeen baal ma de soxna yi ngeen baal ma de lañ ma ko wax de nii ni tëll rek doom ñi ak ah, sama yaay day simb allahu akbar ci caaxaanul de parce que gaynde guy simb mooy loolu le def ci seen kanam gi couleur yu bari yooyu yooyu mbokk yi lan ko moytu lan ko moytu kon mbokk yi jamono yàqu na yàqu na yàqu nga xam ne day gis ci takk yoo xam ne xale yu góor yi loo li ñu sol doo xam nu mu tudd nu tudd yére yu ñu ni ñedd ci sa kaw waaw yére yu ñu ni ñedd ci sa kaw laaw ñu tudd ko yére yu olof waaw bi seere salapet bi mbumi mbumi bu doon jàpp tey jii foog mu summi ko waaye munu caa jàpp loxoy mbubu góor kay day yaatu waaye dara dara neena na aman sax yére buñ fi tuddee robb ci yére góor ndax yére bi nga xam ni yow ci ki nga ko royee euh, moom lañ tuddee artiste fa ñoom loola la buy yëg ci scène bi buy yëg plateau bi buy def nangam yooyu lay faral di sol waaye nag sénégalais moom moom ginnaaw moom luñ ko jox mu consommé amul model modèle demul te ñàkk waaye modèle da ngay am sa modèle amal sa modèle waaye déedéet amuñu ko rek jamono yàgg ya da ngay gis ñu film ah filmu Marimar robb ba muy sol chertt yàggul dara ni ko eh, oustaz Maxtaar di waxee ñuy def ci ay conteneur indi nit ñi dem di ko jënd di ko sol keneen ñëwaat amaat beneen modd ñu dem fekk ko ci allahu akbar ba kañ taali salaam wax ni xaalifuhum na ngeen wuute ak ñi ngeen bokkulul diina ndax ku niru niru lu aw nit ci ñoo ñu ko bokk de waaw mbokk yi kon xewlal nañ fi yére benn loxo yére benn loxo léegi nag moom la xew daa gën a bon ndax léegi la nga gis jigéen jubla la bi jot lool waaye cëy bula la wanee ginnaaw bula la wanee ginnaaw ay am waaw dañu koo xarba rek wallahi lazim waaw nañ laa def bu jëkk sa nga xam ni sipp lay gudd te kenn du ko xar ndax ci suuf euh, ci suuf léegi day gën a yaatu ba borom si bi mën a dox laa mel ni loolu amatul moom daal dañu koy xar rek dañ koy xar xar ba mu sori ba mu àgg ci toogukaay yi wala yaasu billah mbokk yi euh, topp li xew day bu la gën a lee topp yàlla di ko réccu ko réccu de dinañ ci ñëw daal ci yu baree bari incha allah ci wàllu googu nu yem fii rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaadi bi furudin wa sunan سكرته لأن قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهذا